Euh, papa Père Moustapha Mbaye maa ngi leen nuyu ginnaaw bi ma la jaale soxna Marème mi ñu bokk. maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay xanaa mbetteel rek ci ci ci ci sama soxna su baax si nga xam ni papa la ma daan wooyee papa daawul jaar sama tur bëgg ma loolu ngir tagg may tagg yonent bi. mu doon lu ma bett nag waaye bettu ndax dee la yëg. la suñu borom njëkk bind yàlla mu bind dund bi ma ñëwee ci keroog fii ci kër gii fii ngeen ma koy interviewé nii ma yéeg ci kaw mook bii Pepe sama waa ak jëkkëram mu ne papa kaay ñu fii ci kaw ma ko fan mu ne ma kaay nañ dem fii ci kaw mu mel ni tey la mu ne ko teg ma bàyyi rek mu ne ma nañ dem ci kaw te lu nekk la wax ci borom këram bii di Aliou Mbaye Nder nekk sama rakk nekk sama xarit bëgg ma lool keroog lu nekk ser Mariam servir ñu ci biir kër gi fii ci biir ci kaw ndax bëgg borom këram kon lii metti na torop torop torop démb lañ ma ko bi ma ko Mariam mi naa wooye di wax di ma ko wax ma ne ko loolu mënta nekk man xanaa du feebaroon mun feebar bi yàggul di ñaan yàlla yàlla na dekke ci barsàqu yonent bi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla wonaleeg yonent bi metti na trop man daal mënuma wax ndax dafa nekk sama soxna ndax Aliou Mbaye sama diggante ak moom yàgg na lool mu def ma mag bëgg ma lool tagg gi may tagg yonent bi neex ko ñu tuddee ko Alioune Badara su ma koy way damaa ko Alioune Badara jàmbaari góor ñi laa koy tudd ndax am jomam ak am personnalité am ak fulam ak faydaam kon bu lii dalee ci kawam dañ koy nax dañ koy dañ koy dañ koy sant suñu borom ndax yàlla mu nekk lay ñëwee waaye suñu sañoon day yàlla na ko bàyyi soxnaam su tedd sii ndax mu nga ci dëgg maa nga ci fen am sa borom kër bëgg ko ba yamale moo ko yamale moo ko yamale woo ko dara ba dama ci wut seede man mi woyof man man mu xeebu mii ci dundam ah ñun daal mënuma wax daal waaye li may ñaan daal mooy yàlla bu ko cat jiitu yàlla na ko yenent bi teeru metti na loolu nag ndax di ànd ak ñi di cheminer ngeen defal lu nekk yarandoo màggandoo mu xëy jëkk la jiitu ji metti na de waaye nag sunu borom rek moo mën a def lii yàlla na ko yàlla yërëm jërë ngeen bëgg boroom këram rek dañoo toog lu nekk mu servir ko indi ko indi indi indi façon teraanga bu nekk indi ko ci kaw indi ay ndox indi ay jus indi lu nekk. ngir bëggal borom këram rek sama kanam loolu yàggul soxna si ci kaw lañ ko doon def ci biir chambre à coucher hmm? mu nekk ci famille bu baax nag ndax ñoom Pépin ñii ak ñoom Mariama ku leen seen xel sa xel dem ci yonent bi te loolu moom booleeg ku leen seen rek sa xel ci yonent lay dem te loolu mooma boo yàgg booleek ñoom ba ci Pépin mii nga xam dama ne ko dama ko toonaan ko yaay sama shérif ndax gis nga ni ñu taaroo macha allah kon lii ñoo ngi ñaan yàlla mu gëj fi yàlla yóbbu ko ca ngën gi àjjane ci darajay muhammadu rasulullah ah, xanaa ñaan yàlla rek yàlla téyel ko boppam rek njaboot bi yàlla suturaal leen rek bàyyi nag seen wajur wu góor wu tedd bi ñaan yàlla yàlla nañ dund bay ak seen papa di ña di at mu jot saa yu ñuy fàttaliku seen ndey ju baax ji di soxna Marème yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm soxna si li may wax yàggul de matul ay weer de wala ca la yem de maak moom ak borom këram ak pépin ci kaw lal bi lañ tegal ñu añ yàggul lii lii ñëw dogal suñu borom la kenn mënu ci dara. Hmm? ku doon tàggatoo ak yéen. waaw ku doon tàggatoo ak ñun loolu koy tàggatoo laa ko mën a ndax loolu yàggul yàggul am na ko yàlla yërëm amina mi sërëm la ñoom ñëpp samay xarit lañu mu ngi nii ñoom ñëpp samay xarit lañu ngir yonent bi xam nga ñii ku leen gis sa xel dem ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ko jàll sunu wéyjur wu tedd wi ñu ngi la koy jàll papa yal na yàlla guddal sa fan yow yàlla wéral say cër ñu ngi la koy jàll mi kilifa ci kër gi man ngeen koo jël mu wax ak wax ak yéen ngeen baal ma wax jërëjëf. maa baal ma maa ngi tuub yàgg naa bëgg yoon Talla Muhammad wane sama salam lay nekk du day guddal fan yaa leen gën Muhammad yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën na def ni ñu màggal muhammadu rasulullaahi ay sama doom ji dama daan wax ni papa dama laa bëgg ngir tagg gi ngay tagg muhammadu rasulullaahi bil naj mil lawa ku baax bu dee ñu jooy ko filmu sawa sa mawlidi mam marema yàlla da jeg yonen fa ma ziltu fii zahawal mutajaddadi yàgg naa bëgg yoon ca la muhammad yoon ca muhammad muhammadu rasulullahi sama may waaja fa ma ziltu fii moom yonent bi zahawal mutajaddadi sama doom ji mam ma yàlla na dajeeg yërmande muhammadu rasulullah du azar mu bëgg yoon ci Yàlla muhammad ndax mooy maamam fa ma siltu fii sahwal mutajadadi ana ñi fi gën a bëgg muhammadu rasulullah laa ilaaha illallaah fa yaa min la woo yéen a gën maam fa yaamin law xalbun yéen a tedd maam li aw saa fi sadi seen maam jooje du kenn ku dul muhammadu rasulullah laa ilaaha illallaah xusu fim ti daay man moom dong lay way haashimi muhammadan njol ma ka yaa leen moom yonent bi bil naj bil lawaa ku baax bu dee ñu jooy ko fil mawlidi ma marema yal na dajeeg yonan fa ma ziltu fi zahwal mutajaddadi muhammadu rasulullahi sama ma gën ci nit fayaa min la woo xalbun riyaw saa fi sadi xuzu fi imtidaayi ana ñi fi gën a bëgg muhammadu rasulullaay aaw ah, chami muhammada seen maam a gën adduna yaa na yéen moom yéen a deret yonent bi laaxira yaa na yéen moom ñi dund ñëppit yéen a moom mam mareema yal na dajeeg yërmande muhammadu rasulullaay fa yaamin la woo yàgg naa bëgg yoon ca la muhammad ndax moom mooy maamam sa yaaya baax sa yaay jooje yal na dajeek yërmande muhammadu rasulullah yaa baax yaay ay sama doom ji yaa tedd yaay yàlla bu ko ca ci darajey muhammadu rasulullaay ku baax bu dee ñu jooy ko nelaw ngeen a nelaw ngeen ay sama gaañ waaye ñu ci biir suuf ñoom day nelawuñu ñi laloo suuf sangoo suuf ngeganoo suuf ndox di dal ci seeni kaw ñoom day nelawuñu sa yaaya baax bés la rëy rëy boo xam ne bii weddi ko teewul nga fekki ko yàgg-yàgg fekki ko ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yàlla borom jaam malaaka mu réeréy lay yabal nan la jógal tey la sa bis jógal jógal jógale ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi ay ñun fu ñu jëm cey bi la ay ñun fu ñu jëm cey bi la ko masa xam gis ko ci tiis ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi sama doom ji sa yaayu jooje mammareema yal na dajeeg yërmande muhammadu rasululaay ay sunu borom malaaka mu rëy rëy lay yabal nan la jógal tey la sa bis jógal jógal ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yow nga toog a toog sa bis saru malaaka may rocci saru mu metti lool te doo xaroo ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yow nga toog a ba ñetti fan nga daldi mel ni meddub tan yu tan yi ci benn sën ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi ay ñun fu ñu jëm cey bi la ay ñun fu ñu jëm cey bi la koo masa xam gis ko ci tiis ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yow nga toog a toog fan nga daldi mel ni meddub tan yu tan ya wër ci benn sën ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi mam marema yal na dajeeg yonen kër ndey di jooy bàyyi di jooy dëkkandoo di jooy xarit di jooy te kenn du ci man lu dul di jooy ñu xam ni laaw mooy boroom jaami yal na ko yàlla yërëm waxal amin ci darajey muhammadu rasulullahi